alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shu'unihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayyidina wa mawlaana muhammadin markazi anwaarihi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 làmboo yërmande yàlla ju amul àpp di ñaan ci baax ak yàlla ak yërmandey sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa gi ko yàlla tànk yal na yàlla sotti jàmm jooja ak barke booba ak yërmande jooja ci seeni jëmm sotti ko ci suñuy jëmm sotti ko ci seeni njaboot sotti ko ci suñuy njaboot waaye sotti ko tamit ci seeni palaas yi ngeen dëkkee ak yi ngeen liggéeyee loolu yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci barkeeb an nidaau taasi wa arbaun muy xooteeb yàlla bi ci téeréem bu màgg bi muy xoo jaamam yu màgg yi le ci ñeen fukkeeli woote ak juróom-ñeent sama borom di ca wax ne yaa ayuha alladina amanu ida laqitum fi'atan fasbutu wadkuru llaha kathiran laallakum tuflihuna wa atiu llaha wa rasulahu wala tanaasau fa tafshalu wa tadhhaba riixukum wasbiru inna allaha maa sabirin ayaat la yoo xam ne dafay ñaax saxaaba yi di ñaax jullit ni ci ñi bañ a daw ci xare ngànnaay gi gën a am doole gën a efficace ci xare mooy am fit waaye boo doon dem ci xare ngànnaayoo ngànnaay yi gën a baax te fekk na ngànnaayuloo fit doo ca génn waaye bu la fit gungee ci geer loolu mun na laa dimbalee nga gañe guerre ba am ca victoire boo xam ne bu kawee la moo tax sama boroom wax saxaaba yi wax jullit ñi ne su ngeen dajee te kuréel bu mu mën a doon buy xeex ak yéen pour saboter seen diine li ma leen di njëkk digal daal mooy na ngeen sax bu leen daw moo tax mu ne yaa ayyuhal na aamanu hee ni nga xam ne gëm ngeen yàlla idaa laqitum fi'atan bu ngeen dajee kuréel ya moo xam ku kuréelu yahuud ya la moo xam kuréel kuréelu nasaraan ya la moo xam kuréelu mushrikiina ya la moo xam kuréelu kuffaar ya la ak ñeneen ñu dul ñoom ñu bëgg a saboote seen diine li ma leen njëkk a sant mooy fas bu tuur rek na ngeen sax bu leen daw fas bu too na ngeen dëgër fas bu too na ngeen am jom def ko muy seen ab ngànnaay ngeen yóbbaloo ci xare bi waaye nag su ngeen bëggee gañe victoire ba bu ngeen nekkee ca biir xare ba dee leen wéttali yàlla di ko tudd moo tax mu tofal ca waskurullaha kafiran bëgg nañ tudd yàlla ci barab yu ne waaye gën nañ koo bëgg bëgg ku ko tudd ci guerre booy xeex xeex ba di metti ngay wax laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu dafa lay jox force dafa lay dolli fit dafa lay gën a dolli jom da ngay yëg ne maa ngi wéttalikoo ki am doole ki mën a may ndam yàlla ne leer na ma nàññi ci ñaar yi ma digal leen te mooy bañ a daw tey tudd sama tur wi su ngeen ko defee leer na ma nàññi ne laallakum na kon de amul benn sikk leer na nàññi ne kon yéen da gañe leer na ma nàññi tamit ni ngeen di gañee fii ci àdduna noonu ngeen di texee ëllëg tamit ci àllaaxira waaye ba tey wa atiicu llaha wa rasulahu na ngeen topp ndigalal yàlla topp ndigalal yonent bi lim leen di digal ci guerre bi kenn ku ne fu la taxaw loo nga fa taxaw kenn ku ne lum la def loo nga ko def booy man bu ca yokk bu ca wàññi ndax moom xam na la ca kanam te fekk yéen xamu leen ko xam na li nëbbu ci biir guerre bi te fekk yéen xamu leen ko moo tax keroog ba ngeen xuuteeg moom ca Uhud ñoom jëloon ne leen yéen nekk rumaat yi war a sànni yéen a ñu war a défendre leen ci kaw doj yii lu mbir mi métti métti bu bu maanaam ci ñun bu leen wàcc lu mbir mi neex neex ci ñun bu leen wàcc ba mbir ma neexee ñi wàcc rek xéeféer ya wër leen ndomba xaw leen a jeexal rey ñoom lu mat juróom-ñaar fukk mu ne tamit bokk na ci li ma leen di tere wala tanaasaxu bu leen di xëccoo ay mbooloo dañoo war a am kilifa war a déglu seen kilifa lu mu leen digal ñi def ko lu mu leen tere ñi bàyyi ko waaye mbooloo li mu bari bari bu ñu amul leader duñ dem mukk waaye bu ñu dégloo seen leader bi mat leader waxee kenn bañ faa nekk di ko commentaire kenn bañ faa nekk timit naan am naa ci xalaat kenn bañ faa nekk naan non lii lañ war a def su boobaa bu ngeen ko defee rek fa tafsalu sikk amul ne da ngeen yonjox da ngeen échec te su boobaa wa tadhaba rixukum seen force day mujj dem kon nag bàyyi leen xëccoo xëccoo dafay yàq mbooloo xëccoo dafay ñaawal ak ànd xëccoo dafay waral échec ñi nga xam ne ñoo song dara waaye suñ jamono jii li ko yàq lépp mooy wax rek wax ju ëpp jëf résultat du am ba yowmal xiyaam waaye suñ góorgóorlu woon ba jëf ji ëpp wax ji kon fuñ bëgg a yegg dañ fa yegg moo tax damay wax toujours ne liñ ëppale ci wax nañ ko wàññi yokk ko ci liñ manqué la ci jëf ndax ñu jëm ñu yegg fa waaye ci jamono ku la mujj a judd gën laa bëri wax ku la mujj a judd gën laa bëri wax wax rek lañ la nit ñi tànn bañ a jëf waaye da nga gis ko wax ba wax lu fees ay paani paan te mënul jëf lu fees benn kaasu ataaya foofu kon maanaam njariñ du fa am résultat du fa am yàlla ne wasbiru sax leen dàq ci muñ ndax man yàlla inna laaha naka yàlla maa saabirina ànd naa ko woy ña ci ndimbalam ànd naag way muñ ña tamit tabaarakallaahu ci may leen ndam kon gis nga ko aayaat yaa ngoog mbooleem lu jub lu jëm ci wàllu guerre tere nelaw àdduna bi lëmbee ko lépp yàlla tënk na mbiram geer ak li ci haju lépp ci ñaari aaya nga xam ne geerkat yu jël ndigle yi yóbbu ko ca guerre ba lamu ci tere ñi moytandiku ko lu ñu tuuti tuuti danañu am victoire waaye lii mu digal ñu ko buñ ko defut li mu ñu tere bàyyiwuñ ko lu ñu bari bëri bëri bëri defet dong la ñu jëlee ca guerre ba waaye man nga ko gën a yaatal buñ ne guerre nag mooy lépp loo jaamaar loo rek mu mën a bijji njariñal àdduna mën a bijji njariñal àllaaxira su boobaa képp ku ca duggee ni yàlla digale nii bi ci njëkk mooy nga jël fit def ko muy sa yóbbal ñaareel bi yàlla mi la gerloo bu ko baxi gannaaw foo toll de ko tudd ñetteel bi mooy seen leader bi di seen njiit nekk général bi fu mu leen joxoñ ngeen dagg ko fu mu leen taxawloo ngeen taxaw fa bu leen xëccoo ci ay kàddu ñi ne lii la ñuy def ñi ne la li la def ngeen boole ko muñ yii ñeent ku ca ne boo doon xeex ak àdduna bi sax yàlla dimbali la waaye lii ñeent yàlla digle ko ku ko won gannaaw boo doon àdduna bi yëpp ngay xeex ak juróomi nit tamit ñu gañe la ndax saa yu xëccoo ci seen biir yéen ci seen bopp yéen a ngi xeex ak lu leen xeex ci seen biir te fekk yëgu leen ko loolu ngeen war a gañe fexe ba bennoo bala ngeen a jaamaarloog seen noon yi kon aayaat yi ala kulli xaal toll nañ ci jamonooy guerre àdduna bi yépp foo ca dem ñaareel ma ngay takk américains yi gëm guerre ku sëqal ñu ne nañ ko duma naka noonu suñ mbokki naar yi gëm guerre ku ku maanaam ne ñun duñ duñ dañ di bañ ba ba sàngoo suuf ñu jël africain yi di leen sookale ñuy xeex ñi leen jaayi ngànnaay di dund ci seen kaw te duñ ko yëg yàlla nee na yéen ñi nga xam ne geere leen tere nelaw jox naa leen ñeenti yóbbal yoo xam ne ku ko jël muy sa ngànnaay ci geer loo dugg dañ ca génn moo tax alxuraan téereeb lépp la bu àddoo ci wàllu guerre nga ne moom rekk la xam moo ko tax a jug bu àddoo ci wàllu médecine nga ne médecine rekk la xam moo ko tax a jug bu àddoo ci wàllu social nga ne téere bi amul morom social rekk a ko tax a jug waaye bu àddoo ci wàllu science lu science daw daw daw daw fekk na alquran nag ca kanamam di ko xaar lu mu wérle rek alquran fekk trouvé na ko waaye lu science trouvé bu wérut du dëppoo ko alquran waaye bu dëpp bu wéree rek dëppoo ko alquran fekk waxoon na ko bu yàgg ñoom ñu nekk fi naan ak trouvé nañ lu bees dëkk trouvé wuñ tus lii ñuy wax bi ko alquran waxee li nga ëpp na junne at ak ñeenti téeméer demeet kon gis nga yàlla ni mu traité guerre ci aayaat yu gàtt yi ak lim ci wax ak nim ko matalee gis nga aaya ji di yaa ayuha ji moo mujj ci yaa ayuha yi nekk ci suratul anfaal mu mel ni nim tijjee aaya bi nim tijjee woon saar wi ci yaa ayuha gém ci njëkk a wax moom la ko tëjaatee tamit ci yaa ayuha ca mujj yaa ayuha jim njëkkoon a wax ci lanfaal moo doon ne bu ngeen dajee xéeféer yi waay waay bu leen daw jël leen seen fit wi ngeen takk ko def ko muy seen yóbbal foofa ida laqitum la waxoon li yaa ayuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru saxfan fii tamit mu tëjee na ne yaa ayuha alladina amanu ida laqitum fi'atan kon fasbutu kenn du yàlla lim ko tëjee woon rek moom la ko tëjee xaat kon aaya jàngoog di sàkku xam fit ci bañ a daw waaye booy xeex ak mbooloo luñ bëri bari boole koog ami ngànnaay buñ xasee daw kay dara desatu fa jeex na euh, daw kay mooy jeexal guerre waaye ger moom feeg ñu ñuy guerre ak ña nga tax na ñu taxaw riposte bañ a daw xeex ba jeexagut waaye bu daw xasee am rek xeex ba jeex na moo tax lislaam jël daw ci xare mu bokk ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi léegi-léegi danga ko fekk ci bàkkaar yi yàlla dugal ko ci kabaa'ir yi léegi-léegi danga ko fekk ci mubiqaat yi léegi-léegi da ko fekk ci muxbitaat yi muy yi sippi jëf ju baax soo demee da nga ko fekk daw ci geer ku ko xas def li nga njëkkoon a am ci lu baax lépp dafay mujj yàqu waaye bokk na ci juróom ñaar yi bàkkaar yoo xam ne dafay alak boromam dana ko alak fii ci àdduna ba ñëpp yërëm ko mu door koo alak ëllëg ci àllaaxira dugal ko safara si istanibu sabal mubiqaat ashirka billahi wa sihra wa qatla nafsi wa qatla nafsi lati xarama laa ilaa bilxaq wa akla riba wa akla maalal yatim wa tawalla yowma saxfi da nga ko ci fekk kon daw ci guerre bokk na ci bàkkaar yi gën a mag moo tax ab jullit bu ko ñaari xéeféer songee amul droit daw bu dawee rek am na bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi waaye nag bu ko ñetti xéeféer songee su ko neexee daw waaye ñaar lañ daal jarul daw ndax yow sa jëmm ji jëmm la sa gëm yàlla gi jëmm la li ngay xeex tabaarakallaahu da nga see am yaakaar gu mat sëkk mu leer naññ ne boo ca dee dem aljana loolu nag ci boppam yaakaar rek jëmmi boppam la kee nag la muy xeex dara lu leer amut ca bakkanam dong la ca topp ak maanaam ak jombalu jaayil yi moo ko ca dugal yéen ñaar du leen benn moo tax moom jënn jëmmam ji sax matul jëmm yow nag sa jëmm ji jëmm la waaye sa yaakaar gu rëy googu ga tax ngay geer moom tamit yi boppam la kon daw ci xare ngoog sama borom bañ na ko bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi su ko defee nag li mu daanee aaya ji rek war naa tax ku dugg ci ger di waroo daw mooy ne man yàlla ànd naag way muñ ñi ku yàlla ànd ak yow foo daw jëm wasbiru inna laa maa saabirina foo jëm kon jëratu ko te gis nga xukumaat yi ak duwal yi actuellement ñi ngi fere alal ju bari ci xadu ay ngànnaay yu bees jublu ci di xeex te li ñuy xeex sans préciser dara leeru ca mën a dundale ci ngànnaay mën a dundale ci ay soldat luñ mënul ci ñam pour nit ñi lekk mënuñ ko ci def ko ci ndox mi pour nit ñi naan ko mënuñ ko ci investir ko ci wàllu garab yi pour nit ñi fajoo ko mënuñ ko ci investir ko ci wàllu social nit ñi mën a génn ci jafe-jafe yi ñuy dund waaye liñ man ci jënd ay char de combat ak ay ngànnaayu yu ak ay mbubbi koŋ ak ay tabax ay ay ay maanaam tataak tabax maanaam ay yenn place yi sécurité yi yooyu pour di guerre rek tax leen a jug ñu ciy fere ay milliards yi milliards yi milliards billaahi suñ ko fere woon ci sabax jàmm jeex jeex jeex fi loola ñépp buñ ko fere woon ci ñu feebar kon maanaam maladie danañ wàññeeku suñ ko fere woon ci wàllu lekk ak naan wallaahi xiif jeex fi suñ ko fere woon ci wàllu tabax kon amatul benn jëmm jooy gis kuy dox ko amut lusement kon waaye yépp ñu ngi ko ciy def rek luñ sëqale rek bu guerre bi ñëwee rek xuuf ko ñun nag africains yi ñoo ci gën a perte dañuy sookale rek ñuy xeex ci suñ biir di rayante suñ population bi gën di wàññeeku tabaarakallaahu ñu ñuy jaay seen ngànnaaya bu mbir mi demee ba tàng ñi wàccee seeni soldaar yi fii ñi nekk fi di mooy yàlla di tëddee jigéen ñu sàggan ñi yàq culture xale yi wàcc ci réew ma yàq fa loo xam ne ay téeméeri téeméeri at kenn mënu koo defar bañ jàpp ne fu ma ni nag mbir ma tegu naat na ci yoon ñu taxalaat seen avion yi dem buñ ca toogaatee benn risim ñaar balaa amaat geer ñëwaat ñu nekkaat ca loola loolu rekk ñun te ci xeewu mukk te ñoo ñuy sookale ngir mën a jaay jaay seen ngànnaay yi xam nga ne loolu musiba mun koo paase musiba mun koo paase li ñu dal kenn xamul lan la yàlla ne yéen julli ñi takk leen seen fit yi bu leen ragal yahoot yi lu yàlla bind yahoot moo ci gën a ragal lu ko waral dañoo gëm dund koo gis mu gëm dund du am fit dundam googu mu gëm moo koy teree joxe fit ngir dee moo tax yàlla ne danaa leen jox wax leen kuréel kuréel par kuréel ndax fi asan laa wax nakkiiraal ko yawut yi dugg nañ nasaraan yi dugg nañ kuffaar yi dugg nañ musrikuuna yi dugg nañ kenn ku de ci ñoom dinaa leen wane point faible am ba bu leen ko ragalati bu ngeen ni xeex takk leen seen fit yi bu ngeen dawut yéen a leen di gañe yahuud yi lu yàlla bind ñoo ci gën a ragal moo tax ñi rëy làmmiñ foo fekk waxkat ñaareel du nekk jëfkat xuppe rekk lañ man ak di tëkku waaye ay yambar lañu yàlla wax na ko ci alxuraan lu leen tax a nekk yambar dañoo nekk ñu gëm dund te nit bu gëmee dund rekk du gëm xeex moo tax yàlla ne wala tajidannahum axrasa nnaasi ala xayaatin ala xayaatin maanaam wa min alladina ashraku yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sanatin wa maa huwa bi musaxsihi min alazabi an yuammara suratu baqara aya 96 yàlla nee na mbindee fi yàlla yépp yahood yi ñoo ci gën a gëm dund ñoo ko gën a gëm sax musrikuuna yi amul diine ndax kenn ki ñoom dana ngéeju ñu dundal ko junnee xat mu nekk fi di dund rek di lekk ceeb di tox di taxawaalu di wax rek yàlla nee na dund junnee xat du tax mu soril ko safara bu dee rek dem ca buggalam yàlla ma kon foo fekk koo xam ne wal xariisu alal xayaat foo ko fekk jubbaanun lay doon wa maanaam wa baxiilun wa zalilun foo fekk nit ku gëm dund naanaam toilette tu nekk góor ak maa la ko wax tàppet lay doon ku nay lay doon ku torox lay doon li lay xamal seen ak mbon ak seen ak ragal keroog ba yonentu yàlla Muusa proposé leen ñi dem xeex ak jabaabirata yi ñoom yahuud yi luñ ko wax inna lan nadxulaha abadan maa daamu fiiha fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaiduna maayida aaya 24 ñu ne yow Moussa duñ dugg waxuñ lam de lan lañ wax nga xam ne xarfu nafyin la waaye la muy dàq tamit dafa koy dappetal xaraf la woo xam ne la muy dàq dafa koy nasab bu duggee ci mu daari yoon nasab ko waaye la muy dàq dafa koy dappetal ne du xam mukk moo tax mu ne ko duñ dugg ca dëkk ba mukk lan na du xulaaxaa doy na yàlla na gën koo firndeel seen ak tàppet ne abadan mais bu indiwutoon abadan sax dañ sa déggee ne abadan waaye mu indi ca ngir gën a firndeel seen ak tàppet waaye ñu mu tofal ca ne maadaamu fiha feek gaa yooyu ñu war a xeex ña nga ca biir dëkk ba ñu xanaa keneen ay dem waaye ñun duñ dem fenn waaw ku war a xeex na te bàyyi woo xel dajee ki ngay xeex ak kañ ngay xeex xeex du am te lu ko waral lépp tàppet ñu wax Moussa ne ko bu la ko mbir mi jaralee daal fasab anta wa demal nga xeexi yaag sa mag ji ji demal yow yaag sa mag ji Haaruna boo demee fa laa ngeen xeex waaye li wér tawóor daal innaa naka ñun qaaiduna way jékki lañ Haaruna fii fenn lañ demut yow nag bu la mbir mi soofee mbaa mbir mi naqari la takkal say bagaas yaag sa mag ji Haaruna ngeen dem xeexi mais ñun demuñ bu la neexee nga ne ko fazhab demal anta yow laa wax mu nekk tëkkiit ci anta ji nga xam ne moom la nëbbu waaye nag wa rabbuka yaag sa borom dem leen ngeen xeexi yaa wax ne sa borom a la yónni demal nga ànd ak sa borom fa qaatila bu la neexee nga firaaj ko fa sahab demal anta yow laa wax mu nëbbu anta ji ba tey te nag wa rabbuka mbir moomu sa borom dana la dimbale bu ngeen demee yéen ñaar nag fa qaatila aa li wér te wóor inna ñun daal fenn lañ jëmut kon ñaari aayaat yi ak yu mel ni moom dafay tegtale yahud yi tàppet gi ñu tàppet lu yàlla bind yahud yi ñoo ci gën a ragal ah dana ko wax feneen sax law na maljaan aw maxaaratin aw mudaqalat la wallaw ilayhi hum yajmahun wallaahi bu ñu doon bëggee xeex bu ñu bëgg a xeex ak yow bu ñu xamoon ne xunt walla ñu xamee tata yi mën a daw pour nëbbatu ca danañ dem dugg ca ay ragalkat lañ wax rek lañ man waaye saa yoo dajeeg ñoom duma leen moo tax yonent bi yàgg naa duma yahuud yi ca banu Qurayzata banu Nadir banu Lixyaan banu Qaynuqaa ak yeneen yépp yahuud yi ci kaw suuf yépp yonent bi mu dinañ xalak ci jamonoom ba léegi mer moomu lañ ko dencal ñoom yahuud yi ne yàgg-yàgg danañ allié dem toji na wara seen dëkki maam ya lañ loolu lañu gëm ñu ngi ko nëbbu seen xol yow boo dajeeg bu la ko wax ak bu la ko waxut loolu la gëm waaye bis bu ñu ko defee danañ xam ne dëkk ba xam na borom de kon wax naa la yàlla wax nañu ragal ak yawóot yi te dafa ne ko yaa ayyuhal lazina aamanu idaa laqitum bu fasbutu kon nag benn kuréel la ngoog ci yawóot yi te ñoo ñu bokk na ci fi ab bi mu tudd beneen bi ci tegu waaye gis nga ko tamit musrikuuna yi ñoo gën a ñoo gën a ragalati waaye bala maa ñëw ci ñoom ñoom la yonantu bi njëkkoon a duma keroog ba leen yonantu bi duma ca badar ñoom musrikuuna yi waa madinatul waa madinatul munawwara yahuud ya fa ne banu quraysat ba banu nadir commencé nag ah yonantu bi ne leen yaa ma'shara yahuuda aslimu qabla an yusibakum mislu ma asaaba quraysan ne leen yéen mbooleem yahood yi waay waay waay jébbalu leen njëkk li li jot waa quraysin ci toroxtaane tey alag naa leen rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom jaam juróom-ñaar fukk ya ca des daw tabatoon nañ junne waay waay loola tey balaa leen a dal ñëw leen ngeen jébbalu ñu tontu yonent bi ne ko yaa muhammad laa yaquran naka min nafsika annaka qatalta nafaran min qurayshin kaanu axmaaran laa yacrifuuna alqitaala innaka law qaataltanaa la carafta annanaa annaa naxnu nnaasu wa annaka lam talqa mislanaa ñu ne ko waay waay waay yow yonent bi bu mu la xor ci sa bakkan te jéegi nga daje kuréel ci Quraysh yi nga xam ne ay dof la ñu sàggan lañ tàggatuwuñ ci xeex waaw su ko defee nag léegi bis boo xeexee ak ñun da nga xam ne yaa ngi door daje jàmbaar ya wallaahi da nga xam ne mosoo gis ku mel ni ñun yàlla ne ko dañuy kàcc làmmiñ dong lañ xam ñoom yahuud yi waaye xamal leen lii muy alquran ne qul qul lilladina kafaru sa tuxlabuuna wa tuxsaruuna ila jahannama wa bi'sal mihaad ala imran aaya douze boo demee fekk ko ca ne yaa yow yonantu bi waxal xéeféer yi xéeféer yi foofa nag yahud la ci namu ne ko bés buñ dajeeg yow def na not leen da leen rey duñ ca xem dañ leen pang jëmee leen safara mu nekk seen ab lal ndaw lal bu bon kon loolu moom mooy mbiram yahud yi yàlla wax nag ñoom ba mu jeex ne ay tàppet lañ saa yoo dajeeg ñoom da nga yëg ne jëmm lañ yu amut roxu waaye dañuy mel ni rek ay bant ponkali bant yu ñu wéer booy bamax rek ñu daanu kooku xusubun musannada wax na ko kaanu xusubun musannada moom rekk lañ kon yahudi amuñ solo te bokk na ki ñi ma la wax nga guerre ak ñoom guerre na ak ñoom jeexal leen takk ñii mu rey leen ba nu xuraysata ba nu nadir mu daq leen ñi gën dëkk ba dem fële ci asriaat mbooleem yahud yi dëkkoon wetu madinatul munawara di def mbooloo bëgg a dal ci kaw yonantu bi ñëpp yàlla xalak na leen yonantu bi mujj yëkkati drapeau boo xam ne kenn mënu koo daane kon benn kuréel la ngoog kuréelu ñaareel ba mooy musrikuuna yi mu ne ko musrikuuna yi tamit làmmeñ lañ xam waaye xamuñu fit moo tax mu ne ko wakasal xaalu ma al musrikiina fa li annahum kama qul naa laa aqidata indahum yaljauna ila tahdidi wal waidi liñ man daal mooy tëkku la rek waaye bu dara de su xeex rek nga duma leen mënuñ dara laaj leen ko keroog xareeb Uhud Abu Sufyaan jiite leen booba yéeféer la musrikuuna yépp siiwal ne rey nañ yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam Abu ñëw taxaw ne afil qawmi Muhammad ndax nekk na ci nit ñi Muhammad ñetti yoon kenn tontuwu ko yonantu bi ne falaa tujiibuhu leen ko tontu ah mu laajaan ne afil qawmi ibnu abi quhafata ndax nekk na ci nit ñi fi desagum ñi fi desadi ah aboubacar siddiq moom la ñuy wax maanaam doomi abi quhafa abdullah ibnu abi quhafa la tudd mu wax ko ñetti yoon yonent bi ne bu leen ko tontu mu dawalaat ne afil qawmi ibnul xataab doomi xataab ji di omar ibnul xataab ndax moom des na ci nit ñi ñu ngi seen ñetti yoon ah su ko defee nag mu gestu jëm ci àndandooram ya ne rey nañ muhammad abubakar dee xomar ibnu xataab dee na xomar toog toog mënu koo muñ ne ko kasabta yaa abdu wallahi xadd abqallaahu laka maa yuxsika mu ne ko waay waay yow doo yow maanaam abu sufiyaan di noonab yàlla bi wallahi da ngay muhammad déewut sallallahu alayhi wa sallam sayduna muhammad déewut sayduna abubakar déewut xomar déewut yàlla desal na fi ku la mën a gàccaal ku la mën a toroxal ba tey mi mu xam gàcce na commencé na di bàkk xërëmam gu mag naan ali hubal ali hubal mooy tekki ne hubal mooy seen xërëm gu mag googu mu ne ko yëkkatikul jëm ca kaw waaye waaye kaweel yow hubal kaweel yow hubal di way yonentu bi ne bu waxee loola wax leen yéen saxaaba yi ne allahu ala wa ajal allahu ala wa ajal remplacer seen na ngeen ko remplacer ali hubal ndax yonent bi ne qulu allahu ala wa ajal abu sufyaan dégg ko commencé na lana al usa wala usa lakum ñun de am nañu usa ah te yéen amu leen usa yonent bi ne wax leen ne allahu mawlana wala mawlan lakum yàlla mooy suñ kilifa te yéen amu leen kilifa abu sufyaan ne waaw yawmun bi yawmin maanaam bis bële ñi ngeen gañe woon ca badar tey tay remplacé nañ ko tey ci Uhud yonentu bi ne waay waay wax leen ne leen laa sawaa maanaam xatlaanaa fil janna wa xatlaakum fi naar ñun ñu rey ci ñun nekk ñu dee ci xare bi aljana lañ jëm te yéen kuñ rey ci yéen ñi ca dee ñëpp safara lañ jëm foofa nag la abu sufyaan na noppi ci la abu sufyaan ne yaa omar waaw kuñ ku ndax dama lay laaj ndax rey nañ muhammad mu ne ko yonantu bi mi ngi lay dégg innahu wa innahu la yasmaa kalaamaka mu ne ko yonantu bi mi ngi lay dégg de mi ngi dégg sa kàddu gi ci la abu sufiyaan nag xam ne omar mi bokkuma ak moom diine waaye ibnu xami atax mi nga xam ne moo xaañoon yonantu bi waxoon ne rey na yonantu bi kàddug Omar laa gën a gëm ci kàddoom donte maak moom ñoo bokk pas-pas maak moom ñoo bokk benn armée fa qaala anta asdaqu min ibni xami ata moom laa gën a gëm ñi moom laa gën a gëm ci sa kàddu gi foofa nag ndeysaanam ci yonantu bi ne ku dee ci ñun demal aljana ku dee ci yéen dem safara wax jooju nekk naka jekk dafa dafa naqari Omar ibnu Abdul Wuddi moom mu denc ko ba xaswatul xandax mu ngi tuddee xaswatul ahsaab yàlla tuddee na ko saar al ahsaab muy kuréel yi muy xare mu xare la woon boo xam ne xéeféer yépp ñoo bokk allié def benn dànk ne nañ fekk yonantu bi ca Madina rek dal ci kawam maasale ko ak i saxaabaam wax ji jeex te booba liñ nekk ci mbooloo ci ay kuréel yu wutee kenn xamut liñ toll yonent bi amul doole jum leen mën a dékkoo ba mbir ma ne mu yëg ko ci la degale saxaaba yi di leen diisoo ne guerre bi musrikuuna yi taxal jëmee ko ci ñun jublu ci ne mbooleem kuy xéeféer ci àdduna bi ku mbooleem ku bokkut ak ñun pas-pas ci àdduna bi rek nañu ànd ñoom nekk benn dànk ñëw dal ci suñ kaw lu ci seen xalaat ndax yàllaa ma digal ne naa leen di diisu ci samay mbir wa shaawirhum fil amri la ma yàlla wax jàllale bi ko waxante wa amruhum suuraa baynahum lu ci seen xalaat benn persin bu ñu tuddee Salmaan al Farisiyu ne ko man de am naa ci xalaat xalaat bi mooy ne araab yi fas la ñuy xeexee nañ fexe daal wërale dëkk bi ak pax moom fexe daal ba nga xam ne yaatuwaayu pax mi à peu près dana mat quatre mètres jëm cinq mètres gudduñaayu xóotaayu pax mi mat fukki mètre ci wax yi su boobaa ñoom bu ñu ñëwee duñ mën a jéggi ak seen fas yi pax mi suñ yeewee fas yi tamit duñ ko mën a jéggi ak tànk i tànk bu ñu duggee ci biir duñ mën a génnaat ah lii daal moo ci sama xalaat mbooleem saxaaba ya fa nekkoon ñépp rafet lu Salmaan al Farisi yu bile yonent bi commencé leen a sax ñaari nit ñu ne fukki meetar te la gas ba yegg ci wenn doj mënuñ koo traversé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jël pikk ba dóor étincelle génn mu ne ah, genn wàll ga maanaam boo ko xaajee ñetti xaaj doj wa ñetteelu xaaj ba génn mu ne fii ma toog wan nañ ma état su Qaysariya na nga weex mel ni ba ñu xaj ca xeebaay gaa tax xeeb gi ak weexaay gaa ak ba mu ne lii may woote dana fa yegg mu dóoraat ñaareelu xaaj bi maanaam boo ko xaajee ñetti xaaj beneen xaaj ba tamit dem mu ne wan nañ ma état état waaye lii may woote dana mu ne mu dóoraat nag doj wa tasaaroo mu ne won nañ ma état su Xiiraya lii may xotti dana fa xegg waa xéeféer ya nag musriku ne di ko ree ne koo xam ne ragal say noon moo tax nga gasam pax di ko wër di xoote naan sama diina dana xegg nangam keroog la yàlla wàcci qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u waaye gis nga yàlla ni muy waxee baat yi rek moo lay daane gis nga ba muy wax ba la joxe nguur tuuti la wax mu bàyyi ko ci itaaw maanaam nguur bu la ko yàlla na namee jox dafay yomba yomba yomb ba mu jaaxal la koo mos gis mu falu rek yaakaarutoon ne dana falu xamul kenn ku mos jot cim réew yaakaaroon ne da nga ca jot jamono ja nga xam ne jot nga ca dooree ko tey ci Senghor yaakaarutoon ne dana jot ci réewam Sénégal jamono ji ko ko yàlla di jox yàlla ni fekk na mu ne tuutil mulka waaye tamit mu jële ko teg ko teg ci maanaam eh, président Abdou Diouf ba ko yàlla jox réew mi ni mu yombee ci moom yaakaaru ton na dana ci jot demeet eh, président lay wax ak président Macky Sall ak demeet maanaam kenn ku ci ne na la yàlla joxe réew mi nga jiite ko yomb na lool ba foogoo woon ne da nga jot ba ci lii la la gën a jege tey xool président bi tey ci Amérique kenn foogutoon ne tey dana ren dana gañe euh, tabaarakallaahu élection yi ba jiiti réew ma mu yomb lool tabaarakallaahu pexe mi mi nga xam ne mi ngi ko doon defar tromp nu mu def rek moom daanu fay na ñu konteel ko mu daanu mu fayaat ñu konte ko ñetti yoon fu mu dem rek ñàkk na xaalisam ñàkk maanaam boole kook am defet yàlla bu lay jox réew dafay yomb lool day mel ni diggante tàllal ak jël moo tax mu jël baatab tuuti mulka man tasaaw waaye cëy buy nangu réew ma xoolal na mu koy waxe wa tanfeex la wax moom yàlla dafa koy buddi dafa koy xëcc su boobaa pexe yoo def yoo jàpp ne moo lay dëgëral sa réew ma rek pexe yooya mooy mujj daane la xool ko ci yaaya jàmme xool ko ci xool ko ci keneen ak keneen ak keneen ak keneen pexe mi nga xam ne sax moo la daane yow yaa koy na te doo ko yëg ndefetoo li nga doon pexe jublu ca daane keneen lépp ci sa kaw lay màbbu daane la kon nguur bu ko yàlla la xasee jeexal daal gëmal yàlla nga takk say bagaas te doyloo ko loo ca defat ci ay pexe gàcce rek la lay jural waaye li nga bëgg du xam mukk loolu baatab tanfixo ji yàlla wax moo ko waral maa koy buddi maa koy xëcci kenn pexe moo def rek man ma man yàlla ma màbb ko doo ca man dara moo tax noonu la ko waxee qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tashaau wa tanfiul mulka mi man tashaau su ko defee nag aaya ja wàcc la yonentu ba waxoon yépp tabaarakallaahu dëggu na ñu ñëw dawal seeni fas fekk kàmb ya mënuñoo tëb ñaar ñoo mosa ñoo ñoo jéggi pax ma kenn ki dafa dem ba ci biir surax ci biir wax ne su leen ma ku ma génnee yéen jullit ñi ma jox la junney gëléem ñi bàyyi ko fa ba mujj dee fa keneen ki traversé pax meeg fasam wa mooy Omar ibnu Abdul Wuddi jàmbaar la kon joo xam ne boole koog ñaaw làmmeñ boole koog am fit ci jamonoom sax jigéeni yaaram yi ku ci sa doom di jooy boo koy nax da koy wax ne ko noppil Omar ibnu Abdul Wuddi ngi ñëw su ko defee rek xale ba sax noppi ñépp a ko ragaloon mag ñéeg jigéen ñeeg ba xale yi nga xam ne sax xamuñ ko ragal nañ ko ku ci nax sa doom ne ko mi ngi ñëw mu koom rek jamono ji da dégg suñ olof suñ mbokki olof yi ku ci nax sa doom ne ko noppil boo noppiwut jinn gi ñëw fëkk la de noppil boo noppiwut nangam ak nangam ñëw jàpp la de booba tamit ci jamonoom moom jàmbaar ji noonu la meloon yàlla dogal nag natt ko mu jéggéeg fasam wa ñëw ci saxaaba yi ne yow sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaa miin kàddu gooy wax te mu métti ma kàddu ga mu ne ko mooy lan mu ne ko yaa wax ne ku dee ci ñun dem safara ku dee ci yéen dem aljana d'accord naa na kenn ci yéen kon que ñëw gaawee ma léegi ray ma ma dem safara mbaa man ma ray ko mu dem aljana ñëpp noppi ñëpp a ko ragaloon saaba yi kenn saqatut Ali ibnu Abi Taalib jug ne dafa koy songi booba tabaarakallaahu mi ngi ci ñaar fukki at ak benn laam nekk xale ne fu mën a jaar dana ko jug songi yonent bi ne ko Omar la tee ngaa toog mu ne ko damay dem man bu dee bu dee Omar maay Aliyu yonent bi xam ne pexe jeex na mu jël kaalaam nga solal ko ko jàllar ko fóon ko fóon lexam ya ah fóon diggante ñaari bëtam ya daal ñaan ñaanam gi ne allahuma innaka axasta minni xamsata yowma uhudin fala taxus minni aliyan hada al yowm yow yàlla yaa ma rayaloon xamsata ca uhud muy sama bàyyi tëx aliyu mi presque laa defe waaye waaye bu ma ko reyal tay ci bis bi di xaswatul xandax yonent bi di ñaan di ñaan ba pare ne ko demal waaye nag Omar ibnu Abdul Wuddi gis ko muy xale bu tuuti mu ne ko waaw yow man anta yaa fata yow yaay kan mu ne ko maay Aliyu mu ne ko ah yow sa nit ñi dañ laa xeeb yaay ki ba tax ñu yónni la ci man kanaa amuñ ku la gën a ku la ku la gën a rëy nekkul fa moom laa bëgg mu génn mu ne ko man maa fa gën a ñàkk solo rek te yow mii dangaa ngaa jàpp ne yaay ki gën a am solo ci seen armée ba su boobaa nag kon ki gën a ñàkk solo ci suñu armée bi rek moo la war a rey moo war a jëflanteeg yow mu ne ko waaw kon baax na mu ne ko yow yaay xàlli yu nga ne doomi kan mu ne ko abu abi taalib mu ne ko dellu ci làng ga sa baay sama xarit la woon rus naa dajeeg moom xàllaaxira ne ko maa rey sa doom ji mu ne ko waay waay man boo ma rusee rey ngir sama baay man rusuma laa rey ngir alal la waaye bala ma xeex yow dinaa la ko ci jat bi ci njëkk dama bëgg nga tudd baatu seede bi seedeel na yàlla kenn la yonentu yàlla Muhammad mii yàllaa ko yónni mu ne ko déedéet loolu man gëwma ko su ma ko gëmoon du ma yefal sama fas wi bay ñëw pour xeex ak yéen mu ne ko ñaareel bi boo ko mënul nga joxe galak mu ne ko man du ma yëkkati sama xalal di ko yox sama moromam góor mu ne ko ñetteel ba kon mooy nga bañ a xeexateeg yonantu bi bañ a dimbale kuy xeex ak moom siñeeg moom patt ñu bàyyi la nga dem mu ne ko loolu mënuma ko su ma ko defoon waxuma la yow mu xeebu mii mais ñi gën a xeebu ci nit ñi sax dañ ma xeeb yow daal xobxas nga génn tey ma yóbbu la léegi aljana mbaa nga yóbbu ma léegi safara ci lañ léewoo nag tabaarakallaahu ci gàttal àll yi wan ko biddiwu bëccëg rey ko rey gu gaaw yonent bi kontaan keroog saxaaba yi kontaan sarxolle kontaan waaye li ma ci amal solo ba tax ma nettali la xisa bi rekk mooy gis nga musrikuuna yéeg seen arame bu rëy ba na yéeg seen ngànnaay yu bëri ya ndeketoo abuñu solo gis nga ko fuñ mos a dajeeg yonantu bi rek yonantu bi duma leen duma na leen ca Badar duma na leen ci mujj ak Uhud duma na leen tamit ci yeneeni guerre yi mu dajeeg ñoom ñépp ak liñ koy ëpp ëpp ngànnaay ak liñ koy ëpp ëpp ay soldaar waaye dara fu ñu dajee rek mu duma leen loolu ma wax la ci musrikuuna yi walaabal na tamit ci nasaraan yi amuñu fit fu ñu mës a dajeeg yonent bi rek mu duma leen loolu yàlla defal na ko ko kon fi atan jim ko waxoon nag isa laqitum lazina maanaam sax fan ca laaya ju njëkk ja fii mu ne ko isa laqitum fi atan fasbutu yooyu yëpp bu ngeen ngànnaayoo ñeent yi ku ngeen dajee man ko yonent bi nag avant muy génn àdduna wax na ne nag mbir mi ni mu tàmbalee du ko continuer cey mu jëg jamono ngi ñëw ku leen songu duma leen yéen jullit ñi benn saxaba ne ko xanaa dafay fekk ñi néew mu ne da ngeen bëri lool waaye dangeen di nekk bari gu amul solo dangeen di nekk mel ni ay mbuubit rek mu nekk ci yol fu ko ndox mi jumale jumale ko fa ñu ne ko mu ne ko lu ñuy taxa nekk ñu ñàkkee solo noonu mun a ñaari yëf rekk la mooy bëgg àdduna ak siddee te léegi jullit boo fi gis bu ko yàlla dimbaliwul moo la gën a bëgg àdduna moo la gën a bañ dee ku dee rek mu ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu rek ngay dégg bëgg fee nekk rek moo tax mun a yuuseku yuusekul umamu an tadaa alaykum kama tadaal akalatu ila qafaatiha yonentooy wax fa qaala qaailun wa min qillatin nahnu yawma idin qaala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum xusaa'un ka xusaa'i sayli wala yanzi'anna allahu min suduri aduwikum almahabata min suduri aduwikum almahabata minkum wala yaqdifanna allahu fi qulubikum wahna fa qaala qaa'ilun yaa rasulallah wa mal wahnu qaala xubbu dunya wa karaahiyatul mawti seeti ko ci imaam Ahmad abu daawuda doonte ne da nga ca fekk ay alfaaf yu wuutee ci waxin yi ndax riwaayaat yi ak riwaayaatu taxtalifu waaye moom tëgginu xaddis bi moom nii la demee baat yi ci ne moo xëpp boo demee ci beneen riwaaya tamit baat yi ca newut loolu kon yegg nañ ci jullit ñi niñ bëree ak niñ bërilee bu fekkoon ne tey gëmuñu woon dund boole kook sib dee kenn duñu yàq ndax jullit ñi rek actuellement àdduna bi juróom-ñaari milliards yu tege ci ne jullit ñi rek presque mat nañ ñaari milliards mat nañu ñaari milliards presque kon ñoo gën a bëri amul benn kuréel boo mën a lim ci àdduna bi par xaaj bu mat ñaari milliards presque ni ko jullit ñi mate soo jëlee nasaraan yi matuñ ko ak seeni kuréel boo jëlee yëgoot yi matuñ ko ak seen i kuréel boo jëlee protestant yi matuñ ko ak seen kuréel boo jëlee boo jëlee boo jëlee bouddhiste yi matuñ ko ak seeni kuréel boo jëlee ñi gëmul dara tamit gëmul maanaam matuñ ko ak seen kuréel kon ñoo gën a bëri waaye en même temps ñoo gën a bëri de ndax ñun la yàlla dogal ñu am pétrole réewu jullit ñi ngay fekk pétrole bi ñu dul jullit di xeex ak ñun di ñu di ñu nax di sàcc suñ pétrole bi di ko tibb dem di ko jaayi bu paree mbir mi tamit ñëwaat ci suñ kaw ñu mujj fay ko waaye tamit kon ñoo gën a bëri ñoo gën a bërile waaye tamit ñetteel bi ñoo gën a bërile xam-xam niñ gën a lee am am lañ gën a lee xam-xam ñu rek la yàlla jagleel ñu am téere boo xam ne xibaaru woy njëkk ñu mujj ñu ba jël suñu loosuma ci aljana ma nga fa ba nit doogul nit ba nit nit di duggee aljana ba lépp ak ña mujjee safara lépp mi ngi ci suñ téere bi boobu téere ñun rek ko am ku la gën leader nag bu bu joxee noppam leaderam rek mën a dem amul kenn menn mbooloo muñ topp ko xam kilifa gu day ni Sayyiduna Muhammad ñun rek ko am sallallahu alayhi wa sallam waaye heureusement ñeenti njëriñ yi ñaam yëpp njëriñoowuñ ko tey suñ mu jëm jamono ji ñoo gën a torox tey ci ji jamono ñoo ñoo ñu ñu lañ gën a yàq ñu lañ gën a tappaas wax ju bon ju ne ñu ngi koy teg teg ci kaw jullit ñi waaye amuñu fullaay man koo faj jullit ñi lañuy jël tuddee leen ay terroriste maanaam julli ñi la jël tuddee leen ay jihadiste julli ñi la ñuy jël tuddee leen baat ba gën a ñaaw waaye dara amuñu fulaay mën a jug faj loola ci ñi leen koy tuddeekat ñi jullit ñi leen hëpp fuuf jullit ñi leen hëppale fuuf waaye wan nañ doxadi nañ ci seen kanam ba mel ni ñoo ñoo ñooñu leen hëpp ñoo leen hëppale yoonu too ko waxoon mu ne yàlla dana mocc ci dënni seeni noon ak wegeel sab noon nag bu la wegatul yàpp la suñ noon ñi dañoo yàpp mu ne yàlla sotti tamit ci seen xol yéen jullit ñi ak doxadi saxaba benn saxaba ne ko lan mooy waxnu luy doxadi mu ne ko du dara mooy bëgg xàdduna rek ak siddee seen mujj ak jamono noonu ngeen di mel moo tax yéen ay gën a torox yéen ay gën a bëri mais du ngeen am solo da ngeen di mel ni mbuubit mu nekk ci yool rek yàlla ji buy taw mbuubit mi yëpp bu waame wi ñëwee yóbbu ko su boobaa jullit ñi dañuy nekk mbuubit ku ñëw yóbbu xale leen ñi nekk ñoo xam ne dañuy toppe ci gannaaw nit ñi ci koom-koom topp niñ topp ñañ xam ne ñu ngi leen topp maanaam ci gannaaw euh, seeni noon ci xelaat ñoo leen di xelaatal ñi topp seen xelaat mel ni seen bi fàtte nañ ko waaye tamit ngeen topp ci gannaaw ñeneen ñi ngir ak poñetam àdduna wallahi xoolal lii rek mu ngi mel ni tay la wàcc lii ma wax réewam jullit moo jël boo ko càmbaree fekk ko ca fa mu gën a kawee ci arab Arabie Saoudi ba fi gën a suufe ci réewu jullit ñi boo leen fekk fa lii waaye wallahi teraanga ji yàlla may màkka jox ko réewi arab yi wàccee ko ci jullit wàccee ko ci ñeneen ñi mu wàcc ba ci jullit ñi billaahi buñ ko gëmoon ànd ko ànd ca xamul lu dul man kon ñéppay topp suñ gannaaw waaye kenn du nekk suñ suñ kanam di ñu fonto waaye tey heureusement bëgg nañ dund sib nañ dee ñàkk fayda ba tey ñañu waroon a topp ñoo mujj ñu ñu topp leen di di di yambari yambari ci seeni gannaaw kon loolu lépp tabaarakallaahu euh, lu doy doy waar la métti na lool lu doy doy waar la ba euh, moom euh, la ca nekk yëpp sax kenn mënu koo wax ngir ak métti kon jullit bi foog mu xam fit jullit bi foog mu gëm boppam su mu bëggee dem mën a dugg ci rijaalun sadaqu maa ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir waaye ànd ak lépp wa ma baddalu tabdila kon loolu am na ci solo lool bu ci loolu xamut rek fiñ bëgg a yegg duñ fa yegg ba yowmal qiyaam coow li mooy bëri rek waaye duñ am benn résultat te loola kenn ku ci nekk teg na ci sa bët gis nga ko euh, noon soo bëggee xeex ak moom première ba dangay am gëm yàlla gu mat sëkk gu dogu comme ni ko Omar ibnul Jumu xamee woon ba ñu wootee gàddaay mu nekk am màgget ne man xawma ngànt xam naa xalal dafa départ dem dem di dem di dem gaa yi dabe ko muy jël xareel mu jël maanaam di di leen fett ba deseetul dara waaye gis nga ko ba yàlla may ko lam ko ca may te yàgg nañ koo wax ci e, tafsir bi waaye timit ab jullit tabaarakallaahu su su bëggee e, lim bëgg mu man koo am mooy day mel ni anas ibnu nadir mi nga xam ne foo noon na xet ak aljana te fekk na sax booba e, deexagut loolu timit tabaarakallaahu mooy ki nga xam ne moom Buxaari yu indi na ay waxam tuddee nañ ko ko te moom fekkee wutoon xare Badar ànd ak yonantu bi waaye fa kabbara alayhi fa qaala awalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xibtu anhu mu métti ko lool mu ne première guerre bi yonantu bi guerre man fekkeewuma ko man torox naa la in araani llahu mashhadan maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ma baad la yariyanna allahu maa asnau billaahi bu ma yàlla bàyyee fii ba beneen géej ñëw ñëpp danañ xam na ma manee gis nga ko kon kooku gis nga ko ca ca déwén sa rek xarit Uhud ñëw fa la ko Saad ibnu Maalik dabaale ko yow yow yaa Omar ay na nangam rek mu ne moom ah, qaala waahan la riixul janna ajiduha duuna uhadin mu ne man de li ma métti mooy maa ngi fóot danaa fóon xet ak aljana te fekk xegguma sax uhud ngir bëggoon a xeex mu xeex ak waa jooju ah, ah, Omar ba ñu xeexee mu rey ko mu dee te fekk demagul xarib uhud kon fa qaatala xatta qutila fa wajada fi jasadihi ñu fekk ci yaramam wa lu ëpp juróom-ñett fukki jam-jam ak ay dëbbu-dëbbu ndeysaanam mu doora a génn àdduna kon kii moom moom moom aaya ji yàlla wàcce ci woon rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantasir kooku mooy anas ibnu nadir nga xam ne dafa tardé woon xareeb badar waaye xareeb uhud fekk ko ci mu ngànnaayu xéggagut sax benn xéeféer traversé ko mu xeex ak moom euh, di di sax du malik kooku mujj ko ray ko mu mujj dee kon pas-pas boobu mu am bu ko jullit ñëpp amoon rek fu ñu bëgg a yegg danañ fa yegg wala ñu góorgóorlu ba melal ne amaara mi nga xam ne ah, maanaam ummu Amaara muy yaay Amaaratu bnu Yaasir mi nga xam ne ànd naag yonantu bi ci aljana te yonantu bi moo ko wax jël bakkanam joxe ko sacrifice wu ndeysaanam euh, ba nga xamee ne nii euh, ñi ngi saboté lislaam ak la ca xaju ba la ko ca dal dal ko ca ba yonantu bi di leen ñaanal ne rahimakumullah ahlal bayti baarakallah fiikum ahlal bayti ñooñu banaan allahuma ijalhum rufaqaa'i fil janna yàlla nga def Euh, maanaam waa kër yaasir ak mbooloo mi yépp nekk samay àndandoor ëllëg ci aljana lu leen ko may lépp mooy dëggu sopp yonantu bi bañ a daw wala ñu mel ni ah, maanaam euh, loolu kon buñ ko defee rek fu ñu bëgg a yegg danañ fa yegg kon nag demal nga seeti guerre ba Amérique bi mu jëlee dëkk dal ci kaw Iraq ci dëkk bu ñu tuddee Fuluja ñoo ñëpp américains yi song nañ leen mënuluñ leen tus lu leen ko may fas bu tóoje yàlla waxoon rek moo tax moo leen may loola kon nag secret guerre daal ndimbal la mooy bañ a daw waaye ku daw moom mënoo ma ku ku ku dal ci yow dana la mën a duma kon nag nañu am ak njàmbaar ji mel ni nit yi taaluuta ya ak jaaluuta bañ dajee taaluuta ya dañoo waxoon ñoo gën a néew ñu ne daal wala ma barasuli jaalu tawa junoodi yi luñ ca teg qaalu rabbana afri alayna sabran wa sabit aqdaamana wansurna ala alqawmi alkaafirina ñoo mujj gañe leen waaye nañ mel ni tamit ba yàlla ne wa kam min nabiyin qaatala maahu ribiyuna kathirun fama wahanu lima asaabum fi sabilillah wa ma daofa wa mastakaanu wallahu yuhibu sabirin loolu tamit nañ ko ciy bàyyi xel fa muy daanee wax ji rek wa maa kaana qawluhum illa an qaalu rabbana xfir lana zunubana wa israafana fi amrina wa sabit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirina waaye nañ nal ni saxabaa yonumtu bañ leen waxee ne Abu Sufyaan ak mbooloo xam ma ña ngi leen aa xaar luñ wax xaar ah bañ na ko bañ leen wax ñu ne inna naasa qad jamaau lakum ñu ne ah fa axsawhum fasaadum imaanam lu ca teg wa qaalu xasbuna allah wa nimal wakiil lu ca ni fanqalabu bi nicmatin minallaahi wa fadlin lam yamsashum suun wattabacu ridwaanallaahi wallaahu du fadlin aziimin kon ab jullit dafa war a jël lii lépp def ko muy ngànnaayam ko defee kon nag xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ci waxtu wii ma ñëw sof yow li ma sosoon ak yow ci beneen yaa ayyuha ji nga xam ne mooy nekk juróom fukkeelu yaa ayuha aa te mooy yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu abaakum wa ixwaanukum awliyaa in istahabu alkufra ala al imaani wa man yatawallahum minkum fa ulaayka hum zaalimuuna loolu mooy nekk suñu bopp darsu bi aa suba ci waxtu wi lay doon yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci kartanam ak ci sañ-sañam waaye loolu ña ngi koy fekk ca suratu tawba ca aaya trente maanaam aaya vingt ca aaya mooy nekk suñ bopp dar lan faal jeex na yaa ay waaye ci nekkoon yëpp jeex na su ko defee nag suba ñu darak yow nag ci tawba ci kartanal yàlla topp ma suba ci waxtu wi insha allahu in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu li unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh